mu jële ndigal ci kilifa kër gi jaar ci jawriñam muy sëriñ Bachiru di jawriñu sëriñ Abul Baraka ndigal li bàyyikoo ca Cheikh Abul Baraka moom Cheikh Mahamadul Fadil mi nga xam ne mooy kilifa kër gi di borom màggal gi moom itam mu jëlee ndigal ci ki nga xam ne mooy Cheikhul Xadim di Cheikh Mahamadul Muntaqa ngir ñu am ndigalul waajal bis bu tedd bi nga xam ne moom la ñu séentu muy laylatul israa wal di doon bis boo xam ne sëriñ bi daa wax ne saa bu ñëwee nañ fàttali bis bi ni mu toll ci lislaam di bis boo xam ne ci la borom bi subhaanahu wa taala jële woon soppeem ba di sallallahu alayhi wa sallam jële ko masjidul haram yóbbu ko masjidul aqsa doon loo xam ne alquranul karim moo ko nettali taarixal ko wax la nga xam ne moo ca xewoon wax fam xewe woon wax nam xewe woon nga xam ne kon waxtu wuñ jànge alquran rek war nañoo fàttaliku bis bu tedd boobu sunu boroom jële ci sallallahu alayhi wa sallam min al masjid al xaraami ila al masjid al aqsa alladi baarakna xawla li nuriyahu min ayatina innahu huwa samiu al basir mu doon taraanga joo xam ne sunu boroom mësu koo defal kenn ci ñu tedd ñi ci yonent yi ak anbiya yi li ñu baax baax li ñu tedd tedd teraanga jooju sallallahu alayhi wa sallam moo ko am mooy rañaane ko guddi yóbbu ko masjidul aqsa yéege ko nag ca fa ko soob ci péyam yu kawe yu mag ya foo xam ne kenn mësu fa àgg mu jege itam borom bi subhaanahu wa taala jege goo xam ne kenn mësu koo jege noonu te loolu alxuraan moo nu ko wax fa kaana qaaba ni aw adna nga xam ne buñ doon wax xala ñi xamul xala mooy li ñu tuddee arc diggante ñaari bopp yi ni mu jegee noonu la yonent bi sallallahu alayhi wa jege woon borom bi subhaanahu wa taala te loolu kenn mësu koo am loolu ci guddi gii la amoon bi mu demee itam mu teral ko fa jox ko sërica muy sërica boo xam ne mooy lislaam ndax mooy ponk bi gën a am doole bi gën a rëy ci lislaam mooy julli borom bi subhaanahu wa taala farataaloon ko muy juróom fukki julli mu wax na ne ko na ko yóbbu ci sa xeet wa ñu dima ko defal waaye bi mu wàññiku ndax ba mu dem romboon na mboolem ñu baax ñi nga xam ne ñooy borom daraja yu kawe yi ku ci nekk mu nuyu la fu mu dem ñu teral ko màggal ko fa jox ko fa ay ay daraja ja ko yàlla jox moom itam bi mu dellu si ci mbaaxam ku mu rombaat waxtaan ak yow ci yoonam ak sëricaam nga ne ko loolu diis na kon sàkkul ci sa borom mu woyefal ko mu def ko mu sàkku ci boromam mu woyefal ko ba mu des juróomi julli juróom fukk la woon waaye mu wàññi ko ba muy juróom te bu delluwaatoon sax xëy na mu demee neneen waaye nag mu ne kon ku ko def da nga am yoolu juróom fukk yooyee ku mu neexit mën ngaa coobarewul nag ngir sant sa borom ak yokk sa jaamu nga def ba muy juróom fukk waaye ay nawaafil lay tudd kon muy bis bu màgg boo xam ne bisub lislaam sunu eh, cheikhul xadim radiallahu anhu moom itam leeral ñu xew-xew ya ca am ndax lépp da ko jëlee rek ci alquran ak sunna wax ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam jëmmam la borom bi rañaale muy kéemaan gu gën a màggati kon gu gën yóbbu ko ba fa soob jox ko sëri caam bu tedd bu màgg boobu bii yàlla dogal na kon ñu eh, mu baaxe ñu ci itam baaxe ci cheikhul xadim radiallahu anhu cheikh mohamadul fadil feeñ ci guddi gi muy guddi gu màgg goo xam ne mooy guddi gi gën a am solo ci taarixu yonente bi sallallahu alayhi moom itam mu ñëw nag bokk ci njabootu cheikhul xadim waaye sunu borom cëral ko itam cër yu rëy rëy rëy ci cër yoo xam ne dafa mën nees na koo méngale ak guddigoo gi mu doonoon guddig jaamu yàlla ndax ci la borom bi subhaanahu wa taala farataale jaamu yàlla doon guddig baax ndax xarbaax gu tal noonu mësta am ci lislaam doon guddi goo xam ne itam guddi guddig yiw la guddig ñaan la guddi taraanga la guddig nangu ñaan la kon loolee la njaboot gi di barkeelu gannaaw bu amee ndigal fàttaliku bokk ko ak mboolem jullit yi mboolem bindeef yi ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëpp ko bokk waxoon naa ko alquran la du sàppi waxtu wu ne mënees na ko wax borom bi subhaanahu wa taala daf ko yónni ci mboolem bindeef yi yónni ko mu doon yërmande ci mboolem bindeef yi wa ma arsalnaaka illa kaafatan linnaas wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin waaw ci ndigalu kilifa yi mi ngi koy fàttali ñuy màggal si mu xam ne kon noonu la ñuy màggale màggalu Kazu Rajab di ko màggale woote yi cheikhul xadim radiallahu anhu mu doon nag xew-xew boo xam ne dafa ñëw ci fekk ay jamono yu xew-xew loolu gën na ñu la koy fàttali mooy eh, ay gone yoo xam ne dañoo dañoo réer mënuñoo wax ci luñ nekk mu doon lu tiis nag ndax dafa xew ci kër gi am ñaar la sax am na kuñ may waxaat barki dem moo xam ne itam defe naa sax ab leer la boo xam ne bu tuuti la doomi kuñ wax sëñ Ibrahima Kare ak ki nga xam ne sëtub sëriñ bi la ñu am ci jaaxle loolu xam nañ ne yéen a ngi si ndax loolu xam nañ ne seen liggéey la kenn du leen ko fàttali waaw moom mooy sëtub Cheikh moom sëñ Murtada moom Cheikh Amadou moom Cheikh Amadou Moussa ne sëñ na nañ ko fàttali ñu bokk ñaan ndax ab jaam ñaan la am waaye nag nu bokk itam sabablu ndax borom bi subhaanahu wa taala dafa wax ne kat boo bëggee dara da ngay sabablu ba noppi ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu fekk la ca kon loolu la sëriñ bi ne daal nañ ko fàttali ci màggal gi ñaan ñëpp ñëw ñu ko sëriñ bi daan waxee te xam ne kuy ñëw na nga indaale say wagaan loolu ay bagaan maa ngi koy abbu Cheikh Amadou Rifaay nga xam ne moom wala wala fal am na borom euh, boykat bu ma sa wax ne ilmi maa yi xaytu maa yamamtu yam faaw nii nee na sama xam-xam doonul lu may lu may jëli wala lu may seet fu ma soxlaa rek mu daal di teg sama kanam Cheikh Mamadou Fadel noonu la meloon ku ma sa bind woy arab jox ko li gën a jafe lu woy ya neex neex dafay daal di wëlbati kaydoo baxru ba nga binde wala xaafiya ba wala na nga woon ci la lay tontoo du xalaat du du du ko kii loolu ñu bari xamuñu ko ci woon moo tax sëdd yi itam daaw ñu doon waxtaane xam-xam ak ni xam-xam toll ci lislaam ak ni mu toll ci bindeef yi ni mu toll ci doomu aadama yi ndax aaya bi njëkk a wàcc ci alquranul karim mooy iqra cheikh mahamadul muntaxa mii fi toogal cheikhul xadim itam bi mu ñëwee fi mu bëgg a tàmbali ab liggéeyam mooy loolu moom itam defar nit ñi te mooy yar leen jàngal leen moo tax daaw ñu waxtaane woon xam ren itam ñu tànnaat beneen tàmb ñoom sëdd yi bëgg ko waxtaane te mooy liggéey ndax kat sëriñ bi dafa wax ne Cheikhuna al xam-xam ak liggéey ñooy li zona di al isra wal mi'raj ànd koog rakkam ja Cheikh Mahamadul Amin mi nga xam ne moom itam mbiram dafa dugg ci guddi gi moo tax bu ñuy waajal Kazu Rajab ñu ngi waajalaale màggalu alhaaji Mahamadul Amin Baara kon loolu mooy taarix bi nga xam ne moo tax Kazu Rajab euh, sëti Serigne Fallou itam am ci taxawaay boo xam ne Serigne Xaadim junj na ko léegi saa bu ñëwee dañuy wut dañuy def ay waxtaan ndax day bisu diine dafa fees dell ak lislaam ñu fas yéene nag weer wi saa bu teroo rek ñu di ko dundal ci lislaam buñ sañoon bis bu set danañ waxtaane diine waxtaane fàttali konte fàttaliwaat bis bi fàttali màggaayu bis bi fàttali xew-xew bi fàttali ko Cheikh Mouhamadul Fadil mi nga xam ne moo ci feeñoon ñaanal ko ci ñaanal ca sangam ba Cheikhul Xadim radiallahu anhu ñaanal ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñaanal ci mboolem bindeef yépp ñuy def at mu jot nag ñu tànn tomb boo xam ne moom lañu waxtaane bu njëkk ba al muridu saadiq lañ tànnoon muy ak taalibe asalaamaaleykum wa rahmatullah Euh, gouverneur ñu ngi lay nuyu ci kàddu Serigne Abdoul Fattah mi nga xam ne moo yore baatub Serigne Abou Baraka muy xalifab Alaji lu Mbakke moom laa fi teewal mu fab sëñ Mourtada mii def ko muy kilifa yoon wi mu ngi lay nuyu bu baax a baax di la ñaan nga jot jotal ko ay nuyoom ak ziyaaraam ci mbooleem ñi nga xam ne ñoo séq liggéey bi di la feddlil ak jaxasoom ci kóllëre ak bokk gu ngeen bokk li ngeen bokk di ko seereel mbooloo mi yépp eh, li ko teree teew tey nag ci jëmmam donte fu mu war a nekk bu fa suñu Murtada nekkee mook moom ñoo fa bokk nekk ci yitte sëriñ bi rek la ak nit ñi mu ngi koy jégalu bu baax ni ko sëriñ Ahmadul Badawi nag waxe wala Ahmad Badawi sëriñ Ahmad Badawi bis bi ñuy séentu ba waral ndaje mi yaar la yum àndal te mënuñoo tàggoo bi ci jëkk junj na ko muy wàllug diine gum laalanteel lu baree bari bu fekkee sëñ Fallu daa gane àdduna ci bis bi ñu joxe julli jullit yi bu sëñ lu tabaxee jumaa du doon kéemaan ndax moom day mel ne du ma ne moog julli waaye julli moom lañ yónnee ci yónnee ci moom mel na ni def na ca lu bare bare bare ba tabax ba tabax jumaa jutal na jeemu tabax wàlluk diine gi nag sëñ bi wax na ci duma ci dellu si waaye dafa amit wàlluk social wàlluk social gi nag mooy sababus ndaje mi yi nga xam ne ñiy ñëw dañu ko fay yittewoo te mën na luñ ko seen bopp te mënuñu koo ñàkk mu diisoo ci ak ñi nga xam ne lu ca bari mën na sottee ci seeni yoxo kon li ñu fi jot a dégg lenn li mën naa am ñi am nañu junj ne sotti na ba noppi ndax ma nga ñu denc ñenn ñi it digge nañ ñi digge nag lañuy ñaax tuuti ñaax nag boo ko déggee mooy soññi soññi mooy di doxal daamar euh, dóor ko ak xiir walla caw ko xiir muy bi muy bi bi buy dëqi li muy dëqee cawaat ko geneen xiir cawaat ko geneen xiir muy yent mu xeeb la muy daw mu cawaat ko juróomeelu xiir ñu ngi leen ci soññi bu baax a baax doonte cawante ay xiir moom xewut ci réew mi sax waaye ñu xam ne as gor moom moom boppam li féeg néewul danaa def wala danaa bàyyi bu xasee ba ne danaa def moom nit ñee koy àtte ak jëfam ak wax jam waxoon su ne danaa bàyyi it noona yàlla na leen ci yàlla defal ndam nag ba ni ñu ko séentoo lépp suñu borom dogale ko noona jaam nag mën naa bëgg waaye yàlla mooy sottal yàlla na yàlla sottal euh, kàddu yooyu lañu amoon ci lu ñu ciy wax di ñaan suñu borom ci kattanam mbooleem ñi nga xam ne seen loxo da ciy dugg ci ay chef de service ak service yoo xam ne ay nit a moomal seen bopp ñëpp suñu borom jàppale leen ba ñu mën a àggale seeni yéene ndax lépp njariñul nit ñi rek la ndax junjoon nañ ko fi daaw sëriñ Fallou du yëfi nit ñi kese kese du yëfi jullit yi kese kese du yëfi murit yi kese kese waaye nit rek la fi nekkaloon ak mbindeefi suñu borom yi koo xam ne demoon na ba ci biir këram amoon na fu ñu fa tabaxoon lu mel ne euh, melokaanu ndaalu gàtt di ca def ndox saa su nekk picc yi nga xam ne dañuy jóge ci àll bi yaakaar yaakaaruñ ku dul yàlla te mënuñoo root mënuñoo ubbi robinet ñoom la ko fa defaloon boole ko di fa wis as soo xam ne picc yi ca sant ndaw ña ko ca tàmmoon moom kenn duutu bàyyi foofu fu waay jóge ñëw te da koy wax ay moroomam ñu àndandoo dikk kon moom nit ñëpp la fi nekkaloon moo tax bu ñuy wajal bisam sëriñ Abdul Fattah nee na euh, kenn ku nekk bu jotee moroomam rek na xamal ne màggalu Kazu Rajab ren ñu ngi ko jàpp talaata ñaar fukk fan ak juróom benn ci weeru ndeyu mooy ba rajab dëppook ñaari fan ci weeru avril euh, yàlla na ñëpp ñëw ci jàmm dellu ci jàmm suñu mbokkum séeréer moom doon wax léegi nag na xelam dal mook ñi sant sant yooyu na seenum xel dal dal ndax incha allah yii may bëgg a wax lu ci nekk fas nañ yéene mën a fa gàññ euh, defal leen ko mu raxasu euh, xellil leen ko ak xollil leen ko na xelam dal kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp yàlla nañu ko fekkee ay ati at tey santaat yàlla ci fekk gi ñu ko fekkee woon daaw te ñaanoon ko fekkee ko ren asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu l'information correcte venant de vous xanaa rek di dellu si di leen gërëm bu baax euh, bi ñu nuyoo sëñ bi ba pare wax ko tamit mu jottali suñu nuyoo kilifa yi muy xalifu sëñ fàllu di sëñ Abo di xalifu sëñ Touba di sëñ Mouhamadou Mouftaha hmm? di leen ziar bu baax ziar bu sell di suñu nuyoo euh, ñun ñi wante di suñu nuyoo tamit suñuy kilifa waaw euh, kilifa yi di président commencé ko si président de la république premier ministre am ministre de l' intérieur membre du gouvernement bi yëpp ñu ngi leen di nuyu leen ziar nuyoo bi gën a sell ziar bi gën a sell di teg suñu si nuyoo boobu si seen i loxo ngeen jottali ko kilifa yi. di am mbégte rek ànd ak yéen si liggéey bi ni ñu ko defee at yi yëpp yàlla di ñu si may ndam nañ ko wax eh, di ñaan yàlla mu kon rek di ñu si may ndam pour que barke bi ñun ñëpp ñu mën see am barke liggéeyal suñ Fallu barke liggéeyal suñ Touba. ñëpp mën see am mu taas ñun ñëpp ñu mën see mu yaatu ba ñëpp jot si réew mi yëpp jot si tamit waaw euh, dégg na di féliciter sous-préfet également si liggéey bi mu def euh, présenté ñu ko léegi yaakaar loolu ba ñu koy def ba léegi may nañu at bu nekk ñu gis ne daal CRD bi sax dina gën a gaaw CRD bi dina gën a gaaw donc lu ñu war a di continuer la mais di wax rek di leen encourager moom ak préfet ñu continuer vraiment di liggéey liggéey boobu pour que bu ñëwee fii euh, liggéey bi gaaw donc euh, mais jàpp nañ li ngeen wax ci si soxla si wàllu sécurité bi d'abord donc li ñu si defoon yëpp dinañ ko defaat plan de circulation euh, ay xëy na sax ren ñu am macaron yi su ko laajee ñu fexe ak ministère xëy na waaw waaw laisser passer ak macaron waaw laisser passer c'est que oto yi tamit yii ñëw tamit bu laajee macaron tamit peut-être ñu utal leen macaron waaw voilà convoi bi voilà donc laisser passer yi ñu ngi si woon déjà daaw voilà laisser passer yi donc dinañ ko reconduire incha allah fexe ba nit ñi mun see jot tamit à temps voilà li ñu si defoon hmm? si hologramme bi voilà très bien d' accord très bien d' donc ñu continuer donc ak laissez-passer yi def si hologramme bi fexe ba ku si war a jot tamit jot si à temps voilà bu fekkee ne laaj ni def macaron tam ñu def macaron yi oto yi xam ne si convoi bi la bokk di ñëw waaw lépp lu ñu si daan def daal si wàllu Euh, liggéey bi dañ ko si delluwaat def yokk si nag euh, euh, ren am na si xëy na ñaari bees inauguration poste de santé bi xalifa général di si déplacé wu loolu lu ñu laaje liggéey bu xam ne si yokk la sécuriser ko mais également mausolée bi xam ne ñu ngi koy liggéey te pareegul ñu war ko sàmm ba nit ñi mën a def seen ziara te duñ yàq dara si liggéey bi xanaa ñaar yëpp muy police di gendarmerie ku nekk jël na ay disposition bi pour que bu jotee ñu mën a assurer sécurité bi si wàllu boobu. si wàll santé bi tamit euh, li ñu daan jël si ay mesures tamit ko jaar muy si poste fixe yi ak poste yi ñu war a teg xëy na ñaar yi si yees mooy yokk poste fixe yi ñaar kër sëñ Abdou Fata fële si Ndindi ak Ndaamaatu ak si ñaar yooyu mais également caisse d'avance bi tamit ñu defar ko léegi caisse d'avance bi tamit luy bees lay doon bu ko defee tamit mooy loo xam ne dina gën a ñëwal liggéey bi waaw dinañ ko commencé nag bind. wax autorité yi fe am yaakaar ne dinañ ko mën a def fii ak euh, semaine ak ñaari semaine ñett semaine mën naa yi des waaw vraiment pour que bu ëllu jotee jotaay ba ñu mën a euh, gën a yokk li na des si wàllu garab gën a def yokk tamit li ñu xam ne dañ koy fayee docteur wala ñu mën a nekk ay dépenses yoo xam ne si wàllu dépense santé la yoo xam ne mënul taxaw waa service d'hygiène jàpp nañ bu baax euh, li ñuy wax ñoom tamit si wàllu nettoyer dëkk pompe dëkk bi pompe kër yi waaw yaakaar naa ne nee ngeen bëgg ngeen commencé 18 mars mais yi dégg na ko bu baax nañ def tout pour mën a commencé jox leen produit yi le 17 mars ngeen commencé 18 mars. Euh, li ngeen wax si agent tamit parce que 20 agent je que dina mën a def liggéey bi voilà ni euh, des mooy ñu jox leen liste kër yi xam ne war nañ leen pomper euh, li des également mooy comme ni ma koy waxoon sànq rek jàppale leen si wàllu dëkkuwaay beeg lekk beeg yooyu parce que ni ko sëñ bi sànq rek <laughs> ah lépp dina waaw dinañ ko fàggandiku waaw xanaa toppandoo topp rek leneen seen fànn liggéey bi lépp loo xam ne ñu ngi ko fay jaay mooy nit ki jëm si biir mooy nit gi li muy lu muy naan tamit fekk wax fexe ba mu sell yéen loo tam ñu ngi si xaar yéen ak élevage ak yéen ak euh, commerce ngeen taxaw si pour que lépp loo xam ne jëm na si wàllu woowu mu mën a sell si wàllu assainissement tamit ñu ngi xaar mairie bi ak waa UCG ñu jàppal ñu si maire bi surtout sur vidange yi jàpp si bu baax si vidange yi ñoom lañ si gën a yaakaar ren mais nettoiement bi tamit kàq boobu UCG mën na leen si jàppale bu baax xëy na mun na leen wàññi sax liggéey bi si côté boobu pour que ngeen gën a mën a jublu si wàllu vidange bi. si wàllu courant bi tamit ñu ngi xaar ni ñu daan def euh, mise hors délestage groupe de secours bi jàppale leen tamit si guirlande yéeg yooyu wala euh, ay lanterne yi ñu war a mën a leeralee dëkk bi. jàpp que béréb yëpp yoo xam ne tamit màggal gi ñu mu fay amee muy alieu di nit ndindi di feneen yëpp ñu war see jàpp boo xam ne fépp dina leer mais surtout fexe ba li ngeen ko waxee sànq qualité bi ñu mën a ko améliorer comité courant bi ñu mën ko améliorer ak poste yi xam ne yi def nañu leen muy poste courant yu bees yu ñu def bàyyi place sur place tamit équipe boo xam ne da mën a topp mbir yi équipe bu suivi boo xam ne bépp jafe-jafe bu am ñu mën see taxaw heureuse sant yàlla bi xam ne forage yëpp ñu ngi ñu ngi dox parce que nag réseau bi moom moo yore d'abord liggéey bi forage yëpp ñu ngi dox sant si yàlla bu baax li des nag mooy forage rek du doy dix euh, citernes yi ngeen wax yaakaar juróom-benn yaa ngi si raison bi amul problème li des si ñeent yi xëy na bu ñu jógee Porokhane nañ mën a indi fii ñeent li des si ay bâche souple tamit xëy na bu ñu jógee mën a indi fii euh, ay bâche souple li de loolu nag lu ñuy war a cordone la ni ñu ko doon waxee sànq rek bu baax a baax topp ko bu baax a baax ba xam ne bu ñu paree poroxaan rek ñu mën a indi mbir yi fii euh, waa hydraulique dinañ si mën a taxaw ak waa OFOR ak waa seeni ministère pour que vraiment loolu moom du am benn jafe-jafe dégg naa tam li nga wax tamit si wàllu li ñu fay liggéeyee liggéey assainissement bi ñuy def ak euh, yeneen liggéey yi ñu pour ñu mën a éviter laal seen réseau waa Sénélec tamit éviter lu ñu leen di perturber parce que Senelec ñu ngi fi noté nañ bu baax waa assainissement tam dinañ leen ko rappeler ñuy def liggéey bi que waruñu yàq seen réseau bi parce que bu réseau bi amee perturbation lu mu néew néew mun na bloqué lu bëree bëri donc loolu tamit lu ñu retenir la xanaa daal jaar dellu si si wàllu télécommunication yaakaar naa ne li si demandé dinañ ko mën a def benn ligne ADSL pour allier ak pour màggal gi mais également liaison spécialisée je pense que loolu tam dinañ ko mën a def li a wax si wàllu euh, matt bi tamit parce que defaat demande bi mu teel a dem ñu teel ko génnee tamit li ma ko doon waxee sànq au moins sukki fan avant màggal gi pour que nit ñi mun ko jëli fañ ko jëlee région de Tamba mun ko indi à temps waaw mais bu fekkee ne dem nañu ba mu gën a jege gën a jege yaakaar naa dootu amati njëriñ wala waaw léeg-léeg gis nga transporté matt boo xam ne après jamono ji la ñu ne yaakaar leneen la te fekk ne du loolu. donc def tout daal pour que au moins dix jours avant ñu mun ko pare euh, am am permis yi li ngeen wax ci escorte bi tamit convoi bi tamit ñu ngi koy ñu ngi koy topp incha allah su fekkee da ngeen jaar autoroute bi euh, moo gën a voilà su ngeen jaar tamit ci route nationale te ñu teel ko xam pour gën see gën a diisoo ak euh, autorité yi nekk Dakar muy DGPN ak wala waa gendarmerie pour que vraiment ñu mun la suivre ba fa ngeen di yegsee incha allah. bon léeg-léeg effectivement bu ñëwee ba jam ñaajo xëy na kenn seen coordination rek mais bu ñëwee ba jam ñaajo même fii loolu day nekk presque suñu biir secteur parce que benn légion bi la gendarmerie boo ko waxee colonel bi nekk Thiès dina ko dina ko mën a gérer euh, principe ba mu yegg si fii l'essentiel nañu teel a déggoo yegg si mbir yi rek xam nu muy defee mm. en tout cas ñu dellu si bu baax di la gërëm bu baax sëñ bi mm. dina la ziar bu sell am mbégte ànd ak yow si liggéey bi mm. di sàkkuwaat rek ñaan waaw waa wàllu xale yi tamit voilà AEMO comme ni ñu koy faral di waxee màggal gi dèjà da ngeen si mën a teste seen dispositif boo xam ne boo jëmee si màggal euh, bu mag bi bu mag bi tamit ah day fekk dèjà ngeen xam naka lay liggéeyatee donc euh, si màggal Kazu Rajab bi loo si def rek en général moom nga tappaat si yeneen màggal yi en général près lu méngoo loolu ngay def si màggal gu màggal gu mag yi donc dañuy yéen daal tax yaakaar si yéen daal vraiment ngeen def tout pour que mën a def benn dispositif spécial. man laa bëgg dispositif spécial boo xam ne dina mën a jël en charge màggal bi incha allah ren. waaw waaw waaw waaw sëñ bi waaw dégg bu baax li nga wax sëñ bi waaw waaw dégg nañ ah, lu tiis la wax dëgg yàlla ñu bokk ak yéen d'abord euh, naqar bi ah, métit bi ñu bokk ak yéen d'abord ma si mais mi ngi sama xel su ma génnoon tamit si laa naroon jublu si laa naroon jublu incha allah nga xool ko tamit ak police ak gendarmerie nga xool ko également ak procureur waaw naka lañ si mën a def daal pour baral donc recherche yi service boo xam ne laa na si recherche yi nañ si baral ngeen defal ñu si ñaan mais te teewul tamit di xam ne mbirum état la muy recherche koo xam ne vraiment dafa réer dinañ ko def incha allah man loolu moom su ma génnee naa si jokkoo ak procureur ñu gën a xool naka la baral baralay daal ah, mbir mi waaw ñaan yàlla vraiment ñu gis leen parce que tamit su xale yi ndaw moom dëgg yàlla <laughs> ah, waaw